gerte gi lu neex lu nee ngi ci booy balan bële gi balan bëre gi balan bëre bi bu ngeen bëree lool ah waaye yéen a yéen a yéede bu ñu bu ma gën fee dox mu yee bëre doom bëre leen waaye de moom ku ko ci waaw ah, kay góorgóorlu ngeen jàng ngeen ba bëre gi da leen ay jàng ak i leçon ah, waaw waaw fekk rek. Cédric moo xum yow moom yow ah, waaw maaleykum salaam hey jànk ndaw jànk waaw waaw bisimilah ñëwal loo def bàyyi dégg nga nga def bàyyi ngi si jàmm alhamdulilah yow doo doo doo doo Mbaye Ndiaye ah? ah maa la xam waaye nag barki dem dimbali naa la de laa ilaaha gone gi calci ni na la doon maa la ci dimbali suturaal la ndax daf laa naroon yàq dala bëggoon jël yóbbu la fawee la te du la dimbali dégg nga ba loolu sax tax na tubaarkalla boo ba tey sama xel ci yow dégg bu bëggee dégg-dégg daal mooy dama laa nopp dama laa nopp ah waaw. seen boo nopp. ah xanaa yow. gis sa bopp gis na sa bopp gis na. mooy yow mii yooyu lu ko dal xam sa bopp tax ma wax la ko. sa bopp bu ma la yëgee ñun ñëpp tey ñu mujj tey may romb nga nag may doxaat. mu ñëw bu ma amati de. ma yow kii fuuy. foofu laa yem ak yow est-ce que yaa ngi may dégg. Oh, da nga passé nga dépassé. boo fa def foofu nga mën a yem kay. boo fa dépassé bu ñu suba ma duur. bilaay xam nga ne xiir gi da la waroon dal xam nga ne. mafia gi moom bokk ci moom xëy dalaa waroon dal te dama la dan ayub nday